di ko taggee yonent bi day mel ni kon at mu rek bu gàmmo teroo da koy beral xasid boppam yoo xam ne yu ci ëpp ci aaya alquran yi lañ ko tënk waaye yonent bi sallallahu la ciy xidmaal di ko ci tagg am na xasida guñ ciy wax auzu billahi min kulli dur maa ngi muslu ci yàlla ci wépp lor mu tàmbulee ko ci ahyaytu mawlida nabi min asashin wan xaadali fawqal muna fi hamsashi man kay maa ngi dundal wala dundal naa wax ju weesu dundal naa juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci junni at ak ñetti téeméer ak benn baatu assasine mooy 1301 1301 ci hijriya maa ngi dundal gàmmug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yi nag ma ci daan def sunu boroom defal na ma ci ay xéewal ak i teraanga yu kawe yoo xam ne wan xaadal yi fawxal munaa fi hamsachin sunu boroom wommatal na ma lu kawe njort lu kawe ay mébét waaye loolu maa ngi ko jot ci junni at ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom xam sachin mooy 1345 ndax da ko daan da daan def xeetu dat yooyu mu wax ne allama nii mimma yashaau llaahu fa farra iblisu wa man sunu boroom day xamal na ma lépp lu ko soob mu xamal ma ko waaye iblis it daw na ma te dëddu na ma te dootuma dëgmal mukk wax ne waa waajahani yowmul xamisi fi rajab bi ma yaduumu sarmadan eh, xayra ajab sunu boroom eh, dëgmal na ma eh, jox ma ay teraanga ci bisu alxames bii ci weeru rajab ci loo xam ne day sax dàkk di lu yéeme rek ba faaw loolu benn la rek ci échantillon yi nga xam ne sëriñ bi da ko daan bind ci ay xasaayit di ko jagleel mawlidu nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am na ci geneen xasida gu ñuy wax fa man chaa fal yumin mu tàmbalee ko ci farraha mawlidu nabiyi muharrama kamaalahu xaadal ula wal karama maanaam moom day bégloo na euh, juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kamaalahu xaadal ula wal euh, niki mu ko wommatale ak ak yëkkatiku ak ak teraanga dégg nga mallaka mawlidu nabiyi safara tan busharatan xaalidatan lam tukfara nga xam ne da koy toppe yi noonu weeru muharram am na lu ko ci suñu borom defal digganteem ak yonente bi defal ko ko ci safar waaye ba mu ñëwee ci rabiul awal nag mu ne nafaa mawlidu nabiyi rabial awal ara aral yanbu'a nga xam ne foofu sëñ bi la mu fa gis ci ay xeetu teraanga ak i tedd nga kawe na njort loolu diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom